amul kenn ku lay xiiraati ngeen jëf mbokk yi mbokk yi jàkkaarloo ñu ñu seetaan ñoo ngi am mbégte di ñaanal xalif général kullu murid Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ñaanal bu baax itam mbooleem njaboot ak seexul xadim gépp ñaanal jàmbaar yi ci Daaru Xuddoos di Serigne Ahmadoul Moukhtar Mbacké yàlla kàttanal taw taw féexal ko tey ji nag di màggal gi nga xamante ni mooy Isrul Muharram di màggal gi nga xam ni moom la seexul xadim xadim rasul suñu yaakaar ja ñibbisee woon ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Touba ca taawam bu tedd ba di Cheikh Mouhamadou Moustapha andi ko moo tax nag tey jile ñoo ngi fii ci bayti ànd ak Serigne Ahmadul Mokhtar Mbacke xalif euh, Daaru Xuddos ak mbooleem njaboot gépp waaye itam naka noonu itam ñi ngi gis nii nga xam ne ñooy délégation Baye Fall ak si kon yaakaar naa mbokk yi dana ànd ak yéen ci ay reportage ak i témoignage ak lépp li nga xamante ni ruus na fii ci bayti ànd ko commission bi nga xamante ni moo di intik di saytu lépp li jëm ci wàllu liggéey bi Euh, fii ci màggal Daaru dal nag nelaw yaa Mustafa ñëpp mokk nañ amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci Mustafa wala yaara da may yaay borom xaas ni Mustafa Muhammadu Abdallahi ax nii bi ña daa xiiru ak ñay matt seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko Mustafa ña daa jamara ña daa xaatima ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi Mustafa si gil te weytoo madru yi tuub nañ ci yow bu wér te bul faale ko wuy seek far jekki Mustafa su fekkoon da ngay laaj say candidat wiiw ne yaa ña daawoote Mustafa ñi ngay woo nee nañu waaw waaw nda Seex Bamba yaay donoom ku koy sikki sakaari Serigne Sidi Abdoul Ahad ak njabootu Serigne Touba gépp ñu yàgg fi ti weer di ñaanal Serigne Ahmadou Mokhtar mi mu yàgg fi ti weer di dañoo ñëwoon rek ñu ngi fi woon depuis CRD ba ba tey di jokkoo ak sëriñ bi di jokkoo ak comité de organisation bi nga xam ne ñoo yor màggal gi bi ñu defee CRD bi Diourbel ñu am ay yitte yoo xam ne bis da ko yittewoo te comité de organisation bi war ko toppatoo saytu ko ànd ci ak état ak euh, direction concernée yi ak ministère concerné ak commune Touba ñu war a ànd di gàttandu bis ci lépp loo xam ne Euh, bis bi laaj na ko wala yittewoo na ko ñu àndoon nag di ko dox di ko di ci wax di ci dox. dafa buñ ne bis bii mooy bisab sëñ mu Moustapha muy bis boo xam ne bis magu ko ci yoonu murit bis ëpp ko ci yoonu murit loolu mooy la yàlla dogal ndax Serigne Touba mooy fondateur mooy moom moo moo créé yoonu murit waaye sëñ Modou Moustapha mooy créateur yoon moo créé yoon wi maanaam nii mu mel ak ni muy doxee nam tegoon ba ndëgg ni ci loolu lay yoon wi doxe te defe naa ne eh, ñett warees na koo roy ci moom muy ak dal aw fit maanaam ak naw ak nit am xelam ndax fi mu jëlee xilaaf ak Cheikh Ahmadou Bamba fi mu ko jëlee ci aas bi mu ko jëlee ak ni mu ko organisé ak fi mu ko indi yaakaar naa ne loolu ci taarix nit gisagul lu ni mel ci gannaaw yonent ba ba tey jii ndax lu mat a teg teg na ko lu mat a wax wax na ko te bi ko tegee ba ne ba am na fullay sàmm ko ba mel ni war a mel loolu nag yombul ndax teg mbir yomb na waaye teg lu dem moo yombul loolu nag boo bis bii ñëwee ñu di taalibe nga xam ne sama maam ki jur sama ndey baayam kere bi ñuy sañ ci tindoo di sama maam bu jigéen moom wax na ma fii laa daan togge laax yenu bagaan ak laax gi dem ca sañ teb tindoodi bi ñu di ko wax Serigne Moussa Ka bokk na ci taalibi yi njëkk ci sëñ mu Moustapha ci jamono boobu ah loolu moo tax mu ñëw di ndokkeel si sëriñ bi waaye di sàkku su ñaan ci moom te xam ne murit képp ku di murit wala nga di taalibi rek màggal gi am nga ci aw sas am nga ci responsabilité am nga ci war nga ci am nga ci loo war a def waaye loo bëgg sas ko sof ko ndax nit kat bu mujjewul puso bi mu réer bu mujjee puso bu bu jëlee mbir jëlee ko fu fu kenn foogutoon fu yóbbu kenn xamul yóbbu ko fu kenn foogutoon ak njàmbaar loolu mooy jàmbaar booy tagg taggal kooku booy naw nawal ko moo tax yoon yo kuy naw te sëñ Abdou Lahad moo ne woon sëñ Modou Moustapha maanaam ku mooy sama royukaay ak mboolem ñu bari ci njaboot ak sëñ Tuubaa te def naa ne lépp feeñ na tey kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaa di sàkku ñaan ci mboolem njabootam gi waaye di siyaare mboolem njaboot ak Cheikh Modou Moustapha góor ak jigéen mag ñi ak ndaw ñi ñu leen di siyaare ci bis bi di ñaanal taalibe yi nga xam ne ñëw nañ ñu ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm te nawet bi ñu nekk suñu borom def ko mu nawet bu barkeel tey nawet ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Amdi Moustapha ci waaw mbaa ci waaw waaw mbaa ci woowoo nga tollu tey ku ñëw rek ku jëkki jooy ndeyaa doon Mustafa walaf nee na woote yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa Mustafa walaf nee na am xel nangu dem téléphone nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy Mustafa la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla ma wooteloo ku dib dof na tuug ni xel wa dew fekk Mustafa Sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaay ñu ngi sant yàlla bu baax di sant moom mi nga xam ne moo tax ñu mën fee dellu siwaat di sant itam ñi koy jàppale ñëpp ak ñi koy taxaw di ko sant moom ci boppam noonu nag li nu boole ak moom dëgg la sëñ Modou Moustapha ci la bokk waaye moom ak sëriñ Mahmoudan ñoo bokk benn ndey rek boo xam ne yaa ya bokk loolu noonu fu nu teg sëñ Mahmoudan rek foofu lañ ko teg lu mu xewle lu ne dañuy bàyyi lanu jàppoon lépp ñëw fekke si ko jàppale ko ci ba mu jeex dañu daa def bu nu seeree ba noppi ñu sàkku kenn koo xam ku mel ne sëñ laat mi mu dem yandoog ñoom ca kër ga fële noonu kon moom ak yëg ak wormaal ak teral mënu koo weesu li solo nag mooy Daaru Xuddoos moom dafa am solo lool ci yoon bi ndax sëñ Modou Moustapha taxawaayam ci sëriñ Touba ak gannaawam taxawaay yim ci taxaw euh, ñu bari mënuñu ko waaye yàlla dimbale ko bam ba mu réussir ko moom kon yal yàlla yokk ay leeram njabootam gépp gi fi jaaroo tax mu sëriñ Cheikh Mbacke ba ci xalifaam bi fi nekk yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla aar leen te sàmm leen te tawféexal leen mu wóor leen ne daal bis bii ñoom ñëpp a ko bokk rek ndax bisu sëñ Touba la te sëñ Touba la ñëpp a xeentu ñu ngi leen di gërëm yéen itam leen sant di gërëm RTS yàlla fay leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu